léegi nii dinaa ko xaale. ok. saa dama ko bëgg a foog ma gërëm ko ne ko kontaan naa ci doom. te yaay ma koy defal enveloppe dolli ko xaalis nga naan ma la xaar ma jël sàmm bi teel. waaw ah, ok. My er def àddina tonight, naa la foo ne mën fa laa ne lu weer di def ci asamaan bu dennewul sa kanam lay wàññi lu café bi di safee doom yaram matali jaf ka bi ne sama shuker bay lu waral flori rose te newul yaa xeetu xet ma dadi di bég sama قلبي dit, je t'aime répétition les dons. mais ta femme je la supporte pas. Elle me provoque tout le temps. En plus moi je te partage pas. va ba léegi nga tak ko andi ko fii ci kër gi mu don sa deuxième femme wala mu ila nga bay ma ma gaddu sama bagage ma dem sama yoon fala yam ak yow namun naa dooran ci ay njegin naay foo sum bopp di ma fóon di ma raay na mësa feem cuuraay sa loxo bi ma dullaal bu ma tëddee te ci man xaw ma saalu lekk di sax kër gi bënn ndab yi tiinim tele buy bënn teg fan collègue yi di ma woo pour taf dama feebar béy bi nekk fit te nalaw ma démb rawee sonne ma bës nalawaa yaa doon ñëw ci loog biis door ma yeewaat takkal ma sama karavaay ne papa ça va Viens, toi. ça va maa On toog moom bien, merci ah et ton week-end j'ai passé un très bon week-end ah et bien c'est bien amusé oui oui c'est bien amusé ah c'est bien daa am leen li nga xam ne ne foog ma wax na ko. ba jàmm. si si jàmm kese la. papa delluwaat naa ak pot nga la lan. parce man Pod laa mës a bëgg. te moom rek la xam sans mom du ma heureuse te instant yuñ toll nii Mia a vraiment besoin de lui. dama ni ak ni mu munti demee waruma la ko nëbb. sama papa nga kading compra. Eva. Tu sais ma fille. Je t'aime bien. Le nenga porte moi ce bonheur. Alors je ne ferai que respecter ta décision. Le rengue le bah. ne t'en fais pas هلا بوي آسيا nakam Mais ça va très bien et toi Ah, ça va Alhamdulillah. mais si pourquoi naa xam dara lu amati Boy, si dis-moi si tu as yaa xamul ne maa ngi woon Saly comment se fait-il que Marichou jot yi non boy. Oui, pote, ne me dis pas que tu doute de moi non c'est pas que je doute de toi mais juste rek dama bëggoon xam quoi

génn fan non loolu mënul nekk mënul am. nga ma Marichou nga wax ak parce que Marichou daf koy yëg ñu ci lu waxul amul et pour te dire vrai Marichou mosuma ko gis mu mel te booy. soo ma Marichou dinaa ko donc s'il te plaît rek booy tout pour nga gis ko nga wax ak moom. non attends naa ko woo léegi léegi coupé ma woo non coupé ma am lu ma def su ma paree woo ok booy ñëw fa. sama copain non problème yi daal kenn xamul fu muy jógee. allo eh taluma ay Et épargne-moi ces salutations ok xam Lai lu lay xamal minute pot c'est un calvaire pour moi est-ce que tu as compris je veux sa destruction immédiatement on se retrouve après ciao Bon. हम शोक में जमनी चला जमनी देख देख मंगे na तक गिनन नाल को मिच वांच क्योंकि लानी ना फेक मुसे ट्विच yanki mom bayyi nako kon da nga wasare sa bobu jaro ñaar christine lolu pour luma lay wax ma ñew dem yow yaay yow amo dara lo may wax yow numa mel yow mi ko am yama ko nek fi seug sama nok lu nek nga wax mako lu nek nga dugal sama bir bop bi sa ben moro moro le gën marichu lu mu am yo war nga am lu ko raw top ma marichu marichu marichu ba instant bi ni marichu maa ngi amal xolu ki ñaan tegu xamanteni ni teguma fenn lu mu am lu bax ma fexé def ba ma yakal ko ko lolu man fan la ko tek lepp ak yow li sama papa nak deglu say xarit dila influencer ba nga bayiko xeb ko bayiko dem sa eh lolu nak la dul nangum mu. te yow sa sa papa ak man duma sa morom ëpp na sa gémmeñ ha ah? yo nabu ba mala nga roy ci marichou dafa na nga war roy ko ci iña war nga roy ko ci soxor man na lu mu wara am ci ben war nga amana am ñaaram da di sa doomu nday moo tax man nga roy ci mom mais roy bal ci lu bon ak iñaan yow marichou gëna la demit ndax bu metti mi ngi ci kërëm nga tok di sey ya ah? yaa wasaare sa bopp diggan na sa papa man nak may mala fi tarafate ay ni nga ci wax da ngay dom lama tagalé sa bay ëpp na sa gemé lama ma sa bay ba mu ko ak man du ya koy régler xaw sir siir siras mom saya bëggante nga ko sama ci sama kër mo ko fekk bu ko fi gis te so wédde lool nang koy nga xol boobaa day fekk aw ma tànk si bu fi ñëwul man dinaa dem seeti ji ko bu mu fi ñëw mën naa nekk ba tey seeti ko yow loo tey de dama ko gisatul ndax li nga xam moo nekkul sa dignité moo nekkul sa honneur koor kaa garde ba jëkkër ñëw moom nga tasaara ci àll bi tout sur boo ko fekkee ci këram la de ndax ñaar koo fen dara la ci ëmb nga Euh, Nicole, Nicole, je sais, ça fait un bon moment qu'on est en train de discuter mais sérieusement je ne comprends pas Nicole, ce n'est c'est pas pour rien que hiérarchie sport Sénégal football mon nekk ci c'est pas pour rien que les stades nationaux sont ngay nationale on parle toujours d'un système de proximité. mais bien sûr. n'est-ce pas mais ana lan Sénégal sensibilité que nit ñi bëgg nañ ko nañ ko dañ fan club du supporter l'une ñu mais Il y a quoi le plus logique. est-ce que tu peux assurer une longévité du produit dans 5 ans mbël ou bu par exemple ou lambitan est-ce que le produit continue dina continuer exister. La laa de La ko laaj de football xam nga football bu c'est la même chose un champion il reste un champion tay suba ganam suba mo ci mentir. tamit. ok léegi Nous dem tu lutte la question qu'on se pose est calme. mbër rek. koy jël keneen ku dul Yékini. Nika cette campagne vise à mettre ce produit en avant. ça c'est quoi c'est un produit phare de ancienne gloire Igeni, yaa jeexal na. ancienne gloire ku xew nga bëgg ku xew si jamono ji yëpp nag jamono. jeex na Balla Gaye. Balla Gaye yow ban monde nga nekk. wala gaynde bi nga gis fii nii moo tax nga dégg moo tax nga wax Balla gaynde bi gaynde bu xiif la de Balla rek na instant bi wala leneen. d'accord on va être pragmatique. d'accord Modou Lo il est bon il est populaire nit ñi bëgg nañ ko. il serait très très bien pour marquer bi nañ ko jël nañ jël Modou

bu neex ba de kan pikin bu déggee pikin ama balde kon naka jekk ba nga duggee pikin laa xam ne fecc kan muy ama boy ñaa mais fecc lañ mën kamis bi ci la gis nga lii nii star te xoolal produit bi dafa war a dem lii dañuy jël kenn koo xam te dafay dem ànd ak moom ñoom ñaar ñu dem star ak star ñooy ànd

faire trois propositions. Mhm. Ben lutteur, ben basketteur, ben euh, footballeur. On propose à porte. on propose aux clients, on le meilleur. Pour les petits Miss Aqualis, c'est même pas la peine de se ça va se prendre comme des petits pains. Je face. Mes faces. parce que amati na mbër sax yaakaar naa foofu moom jarul dem

vraiment à m'inquiéter, hein Je suis franchement content de si li nga déplacé wu ñëw mënon na la wo téléphone nga né problème amna man ma wara a ñëw fekk ci la mais gis na cër bi ma jox bu baaxa baaxa baaxa baax cër bobu depuis pot tak la ba légui musul dañ mais man lén la bëgg nga xam yaag pot du luy jéx couple jeune bo gis instant bi ni su leen gisé envier leen. man personnellement su ma ñëwee seen kër dama leen di envier ni ngeen di dundé ye ñaar ni ngay sama copain. sama copain di bëgg yow ngay bëgg man loolu dama si kontaan personnellement Marichou te loolu bëgguma mu dañ dara dindi ko dara dara dara te man lenn xam naa ko yow yaa gën ci sama copain. Sir yow est-ce que yéegoon nga ni Pod dafa dem Saly. xamoon naa ne que dafa dem Saly. xamoon naa ko mais bu ma koy xam c'était trop tard. man sama diggante ak Pod dama koy sëyal di dajale lu neex ak lu nakkari lépp di ko muñal gis nga des fois damay gis ay affaire mu koy def dama koy sax bàyyi ci biir mu foog ne yëguma ci dara. Siir man lenn rek laa bëgg mooy mu jël ay responsabilités soit mu takk Eva andi ko ci kër gi comme deuxième femme. wala mu bàyyi ma ma jël samay bagage dem sama yoon loolu rek laa ko ñaan mais du leneen gis nga maag pot lii jàpp ma ni sax maag moom dañoo jote jotewuñu sax. dégg naa li nga wax yëpp te li nga wax yëpp dëgg la parce que man sama copain la mais su may àtte damay àtte dëgg soo gisee may wax ak yow nii sama copain dafa jàq complètement maag du ñu doon gaayen gaayen gaayen pot yenn yi duma ko wax pot su amee problème dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ba jaax lay yëkkati téléphone woo ma nee ma jàmbaar lii ak lii ak lii moo tax instant bi xam naa nekk regretté na ko grave grave grave te moom si boppam xam na nekk il a fait une grosse de trois ans moi lenn laa lay ñaan toogal nga sëy sa sëy man personnellement naa wax ak Pod incha allah. mais yow. la de. ñaar lu ko ñaar. yow sama sama cousine. sañ ngaa wax ne nga koy bàyyi yow siir. Oh. sa cousine. instant ay waxam bëgguma sax et puis yow sax dama laa ndax nga maa nëbb. ne yow suñu xool ko mu may neexal. yow mënuma la jaar fenn. xam nga ne maa ñëw fa. waaw baax na man maa ngi dem. waaw ok. maa ngi dem xam naa ok incha allah incha allah bu baax a baax ok ok ñu dem ma gunge. dama bëgg yàq. boobu ba léegi rek gënoon fexe fexe fexe ba li ma la wax nga def allo. allo waaw tonton Tapha naka mu. waaw yow yow yow yow laay xaar. waaw xaar bi nga waxoon xaaroo ma ko jox. ah. ah seetlu na la yow de ma xaar dama ko soxla. waaw d' accord d' accord xoolal tonton man dinaa fa ñëw pour indi miyaa boobu di sama yaay léegi su ma fa ñëwee man naa leen daal xaalis. Eh, eh, xaaruma miyaa ak sa yaay xaaruma miyaa ak sa yaay waaye bu ma sonal waa yow. xoolal sa bureau laa jëm si sa bureau laa jëm si. non tonton Taba fii mënul fi ñëw instant yii dama lay wax dëggantaan tallu ma ko waa et puis sax xoolal ma boo amee xaalis sa sa topp sa ginnaaw nga yaakaar ni àdduna bi mais du la bàyyi mu sedd. xaalis bi duñ la ko bàyyi Marichou di ko wan nun nuy toog nun noo la ngénte te bin lay ngénte nu doona ko di sa njëgi xar jëndal la ko waaye du ko lekk nu toog waaye wala moom Marichou da ko liggéey allo. yow laay xaar de maa ngi ci mbedd de yow laay xaar de. waaw yow yow Pod man da ma bëgg yëpp wala da nga ma bëgg miin yow génnoo fi nga ne nga ni ma envoyé nga ma xaaj nan nan nan la nan mën a gaawee noonu. xoolal sa téléphone. man sa téléphone bàyyi naa la fa benn message léegi laa la envoyé xaalis bi. bu ñëwul dinaa la woowaat de bu ñëwul dinaa la woowaat. c'est booy bi ak a muus moom kay jigéen ak jonga maa ko yàqal yëf yi waaye muus la def moo ne dox na dëgg orange moo ne la ko def orange moo ne moom la ko def moom moo tax mu gaawee nii nii kay du ma sax bàyyi muy sedd maa ngi koy jëli léegi asalaamaaleykum booy na nga def waaye dama ñëwoon pour retirer waay dama jarbaat bi ma yónnee koppar walaay ñaata la noonu 25000 waaw ah, jox ma numéro bi 653 terangkat Bapak belah aku jokon bapak <laughs> Pak, mai mau mau apa sih? Mai mau tuh deh. Kamu fijaran dong lah nemeku, me dina fijaran. mau <laughs> eh, <laughs> mulu. Ayo mau orang yuai, mau orang nggak desa loh nyom. Amor pulas angel. Ah, kira ini apa nggak dewai? Amor. Merci beaucoup. Pulas angel. Apa ya deh? ki la abal yëre juum na weer man bi baaxul <laughs> da nga faussé décor bi <laughs> xoolal tege-tege bi ca suuf <laughs> euh, wuy ma gis naa pon nag mu ni da nga doon laaj réunion bi kañ la moor mooy tunu moor yow suñu famille bi nga topp lan la lan la yow mënoonu bàyyi amoon mango ah ngay xeeñ parfum néew ni kaki kaki kaki kaaraan kaan posango waaye ah, itu Tafaay da ngaa xorom rek. war war war yow war ëppal nga de. umu léegi loo may apa? eh xoolal xoolal ni ma meloon daaw laa meloon dama lay dóor ci mbedd umu. booy sa doxo waay eh ma laalaat Bunga bu ma laalaat laa la wax nga umu ma def loolu ñaaw nga umu. inu nan ko may ah ah da jauh tapa tapa taaba nga ne ci dëkk bi di sàcc yaakaar ni. amul woo koppar bii ne ci ah nga naa ma ay sëñ eh, xoola booy xoola eh, xoola déglu ma rek samay histoire sa yoon nekku ci léegi xam nga kii bu baax xaw ma ko jéem ma ko am ndax moor mii de borom daraja la kan mooy <laughs> booy ma gis nga kiosque bii nga taxaw ni ah xam nga ni moor di dema ko moom ah, booy wuy ma man ma sa moroom dégg nga li ma la wax li ma lay wax nii lu leer la moor moom moom kii

Euh, je vous apporte le projet dont je vous parlais. Ok. Il est là. Je rappelle que c'est un projet très intéressant. J'ai eu à discuter avec le partenaire qui déjà a signé. Donc euh, en ce moment, il ne reste plus que la vôtre, votre signature. Ok. Bon. Euh, c'est bien, hein, c'est bien. Juste que je me dis qu'il serait peut-être mieux d'attendre au moins ce que je puisse déjà rencontrer notre partenaire. Parce que je ne l'ai jamais vu. Et je pense qu'il serait mieux au moins ce qu'on puisse rencontrer avant de finaliser quoi que ce soit. D'accord, monsieur Joe. Euh, si aujourd'hui je vous soumets ce projet-là, c'est parce que effectivement je suis avancée dans mon analyse par, alors, par rapport à ce projet-là, que j'ai discuté avec les gens qu'il faut, avec le partenaire et qu'à l'heure actuelle, je peux assurer qu'effectivement, il est fiable. Non, déjà, rassure-toi. Hein. Franchement, moi, je te fais entièrement confiance. Donc, euh, je sais que dans mon double, tu l'as ramené. Mais, Nicole, il y a juste qu'actuellement, j'ai pas la tête à ça. Je suis très préoccupé en ce moment. Et je préfère que tu me laisses le projet. Après, après on va voir ça, d'accord D'accord. Mais je tiens juste à insister sur une chose. Ce projet, il est plus qu'intéressant. Et il y a beaucoup de gens qui avaient la possibilité de travailler avec eux. Ils ont laissé tout le monde et ils nous ont choisi nous. C'est une opportunité. Si on passe à côté de ce projet, on va louper une très grosse affaire. On ne peut pas, selon moi, se permettre de perdre du temps tu as raison. Tu as raison. Et non, je te comprends. Hein. Mais il y a juste que j'ai envie d'investir. Et ça, tu le sais. Je suis un investisseur. Et tu le sais. Donc, il n'y a pas de problème. Déjà, je peux te dire que ce projet-là, je vais le signer. Donc, il euh, faut juste que... faut juste qu'on prenne le temps de, voir ça. Et puis, donc, tu me laisses ça. Après, après il n'y aura pas de problème pour la signature. D'accord. Dans tous les cas, je, je reste à l'écoute. Ok, il Voilà. Ça marche. Merci. Ok. voici la liste effective de tous nos clients, ainsi que tous les bordereaux de vêtements que j'ai eu à effectuer. Maman, ay information confidentielle la lay jox te bu Non, mais personnalité lui lu muy ci liste Momo on amoon 60 des sommes d'affaires yi nekk fii ci biir réew mi ci xaalis bu ñu tëdd yëpp ko enrichissement illicite. mais donc si je comprends bien qui de tëdd sama à la pas ngi ci liste lui. Merci beaucoup. Je vais relever le challenge. Fais attention surtout. Merci. Merci beaucoup.

enthousiasme yeah, je me sens faible billaay maa ngi forcé nii rek mais bon je me sens pas bien du tout. tawa tawa yooyu la Edu. Allez, si ça tu continue kon à nga dem hôpital. d'accord d'accord espérons que bu ma yeewoo dina jàll rek. man boo feebaree man tamit damay feebar. yii yow moom bul sax waxee feebar yow moom feebar moom yii bàyyi rek mu jàll ba naree feebar rek te ma tëb jóg laa lay wax nii léegi nii. loolu laa bëgg nag nga wér. non damay jóg incha allah. feebar.